jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen nuyu di leen jaajëflaat bu baax a baax tey maa ngi fi ak ki nga xamante mooy abu Ndiassé euh, depuis depuis làmbam ji ba léegi nag ñoo ngi dégg combat ñoo ngi koy dox ñoo ngi koy dox ñoo ngi koy dox <laughs> ndax <laughs> boo waxee kañ ngay bëri mënoon noonu damay bàyyi bu Siteu bëri ba noppi damay bàyyi bu Siteu bëri ba noppi Siteu nag bëri na fi ba combat bi yàqu ba mu jëlaat combat moom nag kenn xamu kañ la na bëre xanaa buñ ko buñ ko dékkee bu ko dina wax kañ la na bëre moom moom moom Abou Ndiassé Abou nuyu naa la waaw ñu ngi lay fay ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yeneen bi sant suñu ñaari waajur lay fay bu baax a baax a baax dina la dalal di la baalu àq nag. waaw nga ne nga lan nga loo may laaj. kañ ngay bëre ndax bi ma la mujjee laaj. da nga ma bu Siteu paree. bu Siteu bëree ba noppi. waaw ba combat jàll ba am taxawaat <laughs> léegi kañ ngay bëre. ah mais sant rek ñoo ñu dox. xëy na ñoo taxawagul la. xaaral loolu mooy lan. mais man làmb mooy sama métier. waaw te moom laa am. fi mu nag lan saa ñëpp am nañ combat. waaw man rek amagul combat man jàmbaar ji. waaw. fan nga toll. ñu ngi ci affaire yi ñu ngi ànd bolok ñu ngi waaj komba yépp Koli Faye Youssou Mama Lamine xam nga booy Abou Ndiass numéro booy bëri nañ daal Fallou xam fii tamit booy am nañ combat. xam nga di ñaanal ñëpp ndam ñu ngi koy waaj man nag dinaa bëri incha allah balaa saison bi di tëj ci kattanu yàlla. mais dama doon dégg sa combat yàgg Tapha Mbeur. waaw fu ma fan la toll. waaw man xam nga dégg rek laa man dañ may woo contacter ma mais dañ ma contacter rek xam nga maa ngi toog nag di xaar ak ñeneen ñu dul moom. pare nga pour bëre ak fi kenn. Tapha nag dafa duggoon dafa duggoon jàmm gën. def. nga ne balaa mu fay génn. yaag moom faw ngeen laale. waaw man li may wax rek man làmb mooy sama métier ma fi kenn ku dul Tapha Mbeur ak Tapha Mbeur ku si mën a wax samay mbokk boo paree pour pour ma bëre pare naa parce que gars yi sonal nañ ma trop ndax du si man mënu ma si dara chaque jour gars yi ma sonal ñëpp am nañ combat li tax mais mënu ma si dara yàlla mooy dogal mais bëre laa bëgg moom laay def ñu ngi dox na xëy na dafa sotteegul mais li ma leen mën a wax. mooy bu dee damay sax dugg ci journée jàmm dama koy def ndax dinaa bëre ndax dama ko bëgg. doon daal kon su ma wax ji mooy bëgg bëre sa wàllu bopp. mais dama bëgg a bëre samay supporters bëggaat ma bëre xam nga ba tax na damay may ruus ak génn ndax lan fu combat bi toll fu combat bi toll dañ may saroon ngir yàlla combat bi taxawul man leen mais ñu ngi dox mais xëy na léegi mu taxaw xam man nag sama combat yombul waaw parce que dama entraînement caaxaanu ma dem. xam beneen boo xam te ne maa ngi koy dégg. boo fan waaw boobu ñu ngi ñaan yàlla mu taxaw rek ñu ngi dox xam nga ñaanuñu yàlla mu taxaw balaa balaa Koré incha allah. waaw am naa si yaakaar quoi parce que sori na trop. ci koor lañ nekk naka ngeen ci dox naka ngeen koy waajee. waaw entraînement yi gars teel a ñëw dem saal ñëwaat guddi gi géej waaw ba fajar ku nekk dem xëdd toog géej quoi. julli jaamu yàlla tëdd xaar koor gi yàggul quoi un mois la rek te benn weer la boo xam ne dafa màgg nit ku nekk xam nga nga si bàyyi xel xam nga xam nga bis bu weer weer bu màgg la. combat bi ñi naan dëndalee ko yàq yàq mu dox ci diggante Siteu ak Papa Sow combat boobu euh, ñëpp dañ koo bëggoon que gis nañ ni ngeen fonk làmb ji ndënd ñi naan ndënd bi la ñi naan sarax yàq yàlla dogal na waa nañ ko. lan ngay wax ci combat boobu. combat bi ca ko yàqoon rek. <laughs> ñii nee nañu ndënd bi la ñii nee nañu euh, sa Papa Sow bi la. non làmb ji moo bëri woon coow rek. waaw xëy lii moo gënoon. non gëm naa ne si amoon lépp incha allah du si waaw xam nga dinañ ko si nag ci neexal mais lépp na nekk si yar ak teggin xam nga ci fair play comme moom xam nga mu ko waxee. xam mën nañ neexal làmb ji nag mais bu si kenn wax loo xam say supporter bu ci déggee rek di nga xam maanaam bañ a yëkkati tension quoi parce que xaju ci Papa Sow grand frère Siteu la Siteu booyam la xam nga waaw di ñaan yàlla borom bi may ko ndam rek moom it. mais ñu ci bari dañoo ñu hmm? ci bari dañoo gis ne euh, bi Siteu jógee ci làmb jooju dafa toogoon ñu ci bari neen da doon noppalu ñi mu dem MMA. bëre ji fa yàlla dogal mu am ci defet jógewaat fa ñëwaat ñu ci bàyyi nag nee nañu euh, Siteu la mu wane foofu parce que bu ko wanee ci digganteem ak Papa Sow dina ci dina ci jëlee lu ko neex non loolu ak loolu ak dafa dafa ute woon non parce que Siteu mënul pare combat ma Papa Sow maanaam xam nga la moo gën a métti nga pare ba war a bëre lu ndaw yàq ko te boo amul ngëm-ngëm tuuti sax mën nga toog affaire bi da lay jàpp loolu moo ko jàpp mu tombé combat am jege si parewul nu mu war a pare waaw dem borom bi dogalee ko noonu mu sant xam ne moom sportif la. ci bàyyi dañ loolu mu loolu mu wane foofu bu ko andi woon a dikkee nag Papa Sow du doy. non non Siteu newoon si moom du lool sax li newoon si moom du lool te incha allah làmb ji moog Papa Sow des na lu bëri te xale la xale la de mentalement da koy am seet si kàttanu yàlla bis bi daal fonk nañ ko xam nga ñu ngi ñaan yàlla ñu def ko si fair play mu ñëw yàlla may Siteu ndam ñu xooli leneen. la ngeen andi woon ngeen andiwaat wala la ngeen andi leneen lu bees. lépp la ñuy yokk si combat kan lañ koy commencé ci combat yuusu yuusu mu ndaw gars lépp la yokk supporter maanaam lu ñuy bañ maanaam comme dañoo weex donc dañuy yaru rek loolu daal loolu daal ñu ngi koy daw instant bi mais nag bu ñu woon naa naar si guuxum soow mbër yëpp laa koy wax bàyyiwuma kenn gars dañoo pare toog de ñu ngi noppi nag wax jaa ngi jug di dal nii rek boobu léegi ñu ngi toog mbër yëpp. képp ku am ak fii mbër buy bëre fii làmb laa dafal dal nga yaru nga xam bu baax. non mais li ngay def ni napp yeneen mbër yi tamit nag. <laughs> moom damay wax li nekk xam nga fii gars ay safara lañ te xam nga kon nañ ko def lépp si yar ak teggin bu ñu yee safara si gars yi dara mais dañu sonn si ñun dañuy yàq làmb dañ si sonn. mais est tam yéen a yàq làmb. non moo tax nag dañ sonn si wax jooju mais léegi gars yi du ñu xool léegi ku tooñ de ku tooñeer bi la xool. ñun dinañ ñëw stade mais ku ñu tooñ léegi danga nga koy gis mais dootuñu tooñ kenn. waaw loolu daal laa am si lu may wax. waa waa jàmm gën si Kapa Mbao ñu ngi waaj bu baax xam nga ñu ngi waaj même Thiat Fora am na combat xam nga ay tooma mu ngi ñëw. Abou foo ne. am na combat mooy mooy mooy Alliance Baldé. waaw Alliance Baldé ñëw rek Thiat jàpp daan mu ngi Alliance Baldé Thiat ko gën a pare foofu. booy dañoo pare de saison bi incha allah tëj bi lépp ay ndam lay nekk ci Youssou lay commencé ba gars yi tëjee si gole non jël kinaa bu ñuul moom moom moom jël kinaa bu ñuul day ñaar ah waaye bàyyi leen moom waaye gars yi bu ma andi ci ginnaaw bu ko wax sa waay commencé di wax maa woo Siteu xool sax ki nga xamante ni <laughs> mooy. man mënu ma sax wax si loolu en tout mën a wax mooy. collègue nii incha allah dafay jàpp daan ko kan. Coly waaye dem jàpp ko daan ko ñu ñibbi. waaw booy xam nga tey yéen da ngeen a bëgg a wax ju bëri nii rek mais diis du rey aas. mais mais hmm. waxuma la sax kenn waaye làmb ji góor mënu ko si duma. làmb ji laa la. man xaw ma da nga la mais dama ne la Coly waxuma la booy bi mais làmb ji laa góor mënu ko mënu ko si duma bu ko duma bu génnee làmb ji dañ koy tëral fi mu bu ma taxaw wax waaye loolu <laughs> ñëw na de waaye bàyyi li ngay waxee. bu koy ñaanal yàlla bu ko cat topp yàlla na yàlla xam nga ànd ak ñun parce que pare na am na doole xale la du benn sax ka làmb ji moo neex nii rek. ku nekk di lii. Ada laa Ada <laughs> ah, dafa neex. làmb ji dafa neex barke sëñ Touba. waaye eh, Coly yal na ko yàlla may ndam ba pare ni ma bëgg wax lépp naa ko si kàttanu yàlla. ko yàlla may ndam incha mu toog li ma bëgg wax yëpp naa ko wax. kontaan naa ci yow. ñu ngi lay fay jàmm si yow. waaw bëgg ñëpp nag. ñoo bu royal dara mais sa koppar yu baax na.